coup franc noonu ca booru turbine découverte ba à la touche teg nañ ko ñu mbokk ko mu génn ñoom waa Deggo Darou Rahmane mais naya moyen waa André Kili ñooy jéem doxal ba tey ballon perdu ndax day génn en touche waaw génn na pour waa André Kili génn na pour waa André Kili ci seen ban ban wu Deggo la wala touche bi am par le numéro 18 mu tegal ko le latéral Thank you. mu tegal ko le numéro 12 bu waa André Kili joué na touche bi ndax da koy tapé remet lay doon ma ngay dem ma ngay dem mu tëgg au crochet teg na benn attaquant baa nga ca gannaaw défenseur Deggo Daaru Rahman bi mbëkk na ko moo ko mbëkk noonu ña ngay jéem a doxal ñoom waa Deggo Daaru Rahman génn bal bi seen zone mais dafa génnaat en touche dafa génn en touche rapidement joué pour waa André Kili ñi noonu am na numéro excentré la numéro 14 waa André Kili il bien l'excentré le André Kelly. Il est bien. Marche pour le passé, il a fait un grand match. Voilà. Nous jouons aussi à défense plat. waa André Kenny défense plat lañuy joué deux défenseurs ñaari latéral ñu def euh, milieu terrain bi lañ gonflé def ñaar excentré ab attaquant de pointe voilà noonu lañ def voilà ñoom waa André Kenny même waa Deggo Darou Rahmane ci même philosophie boobu lañ def ñoom trois défenseurs dafa mel ni lañ def euh, ñu ngi def euh, voilà bal bi jëlee na en touche voilà trois défenseurs trois milieu terrain jéem a def ñaari excentré benn attaquant ñoom waa Dégol daa dox man taxawaay bi loolu laa gis voilà ñu noonu le coacheur mi ngi noonu Tafa si mook de ñoom ñoo ne ci banc bi mais Tafa laa gis gisaguma Doudou Doudou gisaguma ko mais Tafa moom mi ngi ci banc bi ak son numéro 77 voilà. c'est le coach il était joueur de l'ASC Dégol bi ñu formé ASC Dégol ñii ñooy les premiers joueurs les Tafa On a, on est formé, on a formé e Dego à quelle année IC e Dego, si je ne me trompe pas, à 2000, 2010, 2011, si je ne me trompe pas, quand on a formé. Si ça manque, je pense, waouh. Je me plus là, Dego, je crois, 2010, 2011, quand a formé. Voilà, parce que, ah, les beaucoup, après nous, ils nous zone 3A, puis beaucoup. Voilà, IC e Dego, Rahman parce que dañu leen yóbbuwoon côté Jokkul même bu àjjana bi muy doog a ñëw foofu lañ ko yóbbuwoon

équipe son première année Elle euh, a joué à Diamaguène. À Diamaguène. Waaw à Diamaguène. Son première année. Joué na Diamaguène à première année. def final contre ak Dewo. Uh-huh. dugal premier but euh, final bi moo dugal premier but bi Galaye la capitaine a dugal deuxième bi après le deuxième année bi ci topp ci la ñibbi yeggul yeggul grand boobu yeggul je me rappelle très bien de Deo. voilà kii Mbaye. nañ ko ñoom nekkoon ci axe bi. waaw ko moom. ba pare ay ay Deo parce que final boobu yeggul. am na benn kii nu mu ah, mi. am na benn anecdote bu leen bu leen topp. waaw maa ngi fàttaliku ñu ñu programme leen je crois que troisième heure. jour boobu dafa naa dañoo fàtte seen licence. nga fàtte seen licence. voilà voilà voilà yow voilà le code supérieur yooyu sax. mooy le code bi nga rappelé wu loolu. kon mooy le code mais finalement je me rappelle très bien. entre Dewo ak Diamaguène Diamaguène euh, Dewo. kérok ay maillot lance lañ sol foog naa Pape Ndiaye soirée sax moo la ko joxoon ay longue match keroog sama rappelle très bien match bi yegul mais 2 buts à 1 Paco Boy fële la taxaw hors de surface de mbëkk bal bi donc la deuxième année il a joué à Deggo ah, Darrahmane il a joué combien d'années à Deggo Darrahmane Deggo peut-être il a fait 2 ou 3 ans là-bas dafa dafa fa lu yàgg après doo dem Arabie Saoudite voilà après la voyagé après la voyagé mu dem Arabie Saoudite voilà après dem na fi Chine après ñewat encore revenir delluwaat Qatar delluwaat Arabie Saoudite aussi moom côté bobu lu ëpp lu mu def donc voilà, les Canariens. Un grand parcours. Oui, Paco Boy, il a fait un grand parcours. Minimum, il a fait plus de 15 ans de carrière l'international, Paco Boy. Mais il n'a pas, pas été convoqué à l'équipe nationale. Non, non, non, non. Alain Sucé euh, n'a pas convoqué son papa, mon école, l'intendant de l'équipe nationale. Euh, Alain Ndiaye, mon Nekon, l'intendant de l'équipe nationale. Parce que le match Sénégal, euh, Cameroun, moi, je suis d'autres filles. Nous Samuel Eto, un bid de. Euh, qui m'a dougal. Euh, Dembaba. Dembaba. Demba Ba moo dugal keroog Issa Dia moo récupéré bal bi ci milieu bi defal ko profondeur Demba Ba dóor bal bi góol bi tëdd mu dal seen diggante loxo yi à la vingt treizième minute ñu bëri bi suñu biir Paco Boy boobu il était en l'attendant de l'équipe nationale ok mooy Paco Boy waaw waaw Aline Ndiaye Aline yoroon équipe sax mais fan yi yaramam moo ko mayee tur mu bàyyi booy doxal moo yoroon équipe ke Pape ok ñu ngi laa kontaane Pape Siry ak suñu coach bi nga xamante ne nii. voilà instant Touba. Hmm. DG nee na match bi dañ ko arrêté parce que góol bi nee na gisatul. gardien de but gardien de but bon comme gardien mais gardien de but le match problème lumière kon dañu arrêté match municipal du donc victoire parce qu'ils sont l'adversaire mon monnaie, gardien de but il a adversaire bi donc arbitre central bi de décision jël c'est victoire le maître du terrain il faut qu'on respecte les arbitres parce que nous nous

c'est le maître du terrain. Il faut qu'on respecte les arbitres parce que nous avons carton rouge, nous avons jaune pour nous continuer. Donc, Pape Sidi, pratiquement, il nous a attaqué dans le côté gauche et de tribune Mongomo, Voilà, Dégo attaqué dans à côté de tribune Mongomo. Voilà, donc rien sur les dents, comme le disait Pernia. On joue combien de minutes, euh, Biram Mahol Kofofou J'espère on joue à la Ah, voilà waaw ñu ngi noonu waa déggoo voilà voilà nous sommes à la huitième de jeu toujours rien sur les dents entre Déggo Darou Rahman et André Kelly voilà tous pour waa André Kelly à la turbine découvert couvert du moins voilà ñu ngi noonu delloo si nañ ko à une touche ball koy jéem a yaatal génn ko seen zone ñoom waa André Kelly ña ngay doxal ña dem ña ngay dem bal bi jennul tous arbi bi neena fort fort pour wa dego fort pour wa dego Daaru Rahman voilà déggoo ñoo am coup franc ci ban waa André Kenny lancé nañ ko dañ koy mbëkk mu génn mais génn gu ci seen zone waa déggoo reprise sa volée góol bi jël na ko en deux temps le gardien de André Kenny mi ngi noonu day jël bal bi en deux temps voilà jël na ko mu rey foofu benn deux ou trois secondes pour André Kenny un long dégagement le gardien André Kenny pour son latéral bal bi mbëkk nañ ko day génnaat day génnaat en touche. touche pour André Kenny ndax remee lay doon da koy delloo le numéro 7 day dem day dem ballon perdu récupéré par le numéro 13 de l'ASC Deggo lu muy def ballon perdu par le numéro 9 il a changé complètement le jeu. diagonale la def bu sori par l'excentre le numéro 14 il est bien ngandam match la def match bi passé le numéro 14 André Kelly arbitre nee na ko y a rien y a pas de faute ña ngay doxal ñoom waa André Kelly ña ngi koy yaatal ba ci seen numéro 9 day dem day dem yaatal na ko ba ci milieu terrain bi ballon perdu ballon perdu car attaque la jëm jëm a mën a noonu faute faute par le stoppeur André Kelly voilà vous êtes euh, Ndam TV RMB TV voilà ñu ngi noonu waa Deggo ñoo def relance bu sori amul dara y' a dafa am bobal bi dóor ko mu dal ci défenseur bi mu protéger ko eh bien faute faute ñoom waa André Kenny. ballon récupéré le numéro 14 bu waa Déggo Darou Rahman récupéré nañ ko ñoom André Kenny ci milieu terrain bi day dem changé na ko mais waa ji ci kanamam ci ginnaawam la ko paas ndax lu gën a si day gën a en touche day gën a en touche pour waa Déggo Darou Rahman un long touche touche nañ ko bu sori par le numéro 10 mu mbëkk ko Moroboro Ndirat récupéré nañ ko ñom wa dégo ndax dañuy ñibi ndax dañuy ñibi wala tabaxat ñibi nañu ñom wa dégo par la gardien un long dégagement récupéré nako ko l'attaquant mo ñew ba ci kaw jël ci bal yi ma ngay dem day dem le numéro 7 day dem day dem bal bi récupéré nako la di porto grande poteau, première occasion. Voilà. Voilà. Arbitre bi nee na hors-jeu, arbitre bi nee na hors-jeu la kon. Arbitre bi nee na hors-jeu. Voilà. Mais no! non. ña ngay doxal ñoom waa André Kelly yokk nañ ko ca kaw ndax góol bu gën a jël bi góol góol ko góol bi dafa mbëkkal góol bi yokkal ko góol bi gën a jël ko biram zéro bi partout entre André Kelly ak euh, Deggo Daaru Rahman ci round d'observation lañ nekk après treize minutes de jeu. mu de jeu Pape Sidi mu ngi noonu ñooy dem lu muy def. bu muy def la gardien de but moo gën a jàpp la le gardien de but ba rek këriñ waa déggoo ñu ngi déggoo pour dugal benn but wala ñaar pour mën a assurer seen qualification Pape Sidi mi ngi noonu kan moo ko dégagé le défenseur moo ko dégagé bu André Kenny mi ngi noonu si milieu terrain bi ñuy def kan mooy mbëkk André Kenny mooy mbëkk ñu dem si milieu terrain waa Déggo ñoo ko delloo noonu bu ñaan si waa André Kenny balay bondé bondé waat ñaari yoo kan mooy jël waa Déggo le numéro 9 moo jël numéro 13 mu ne booy benn joganaaw mu daw excentré droit bi day jëm lu muy def day jéem a teggi day jéem a teggi def day jéem a def taaru na lu arbitre wax arbitre beneen coup franc pour ASC Deggo ñu ko Deggo pour jéem a dugal benn mais latéral gauche bu André Kenny moo ne ko doo fi jaar wala kal nga daanu excentré bu Deggo Daaru Rahman moo doon jéem a dem latéral bi teg tànkam ne

parce que nous sommes à la 15e minute de jeu Il muy fukki simili ak juróom kan moo koy dóor arrière na un deux trois quatre pas arbitre bi mi wax ñoom daan leen pousse leen bu leen avancé taxaw vous na le ngeen arrière ngeen taxaw baaxul taxaw leen nii dee leen dégg lu mel ne arbitre daw na xajal leen lu muy def le coup franc mi ngi vous avez koy aj koy dóor xaaru leen ko le défenseur ñoom ñoo ko delloo le défenseur la André Kenny ñu ko mbëkk mooy génn numéro 2 bu moo ko mbëkk mu ngi noonu kan moo koy wàcce ñu koy xëccoo noonu ñoo doon ko franc bi kan moo ko yor waa déggoo bal bi noonu doxool kan moo ko doxool ñu noonu si ligne médiane bi si milieu terrain bi nu muy def ñoo ko téye centre André moo ko téye arrière droit bi moo ko jël jox ko libéro bi ak si moo téye avancé trop ne dafa naa ne numéro 13 moo ko jël joxe ko noonu côté gauche da koy passe mu mbëkk mbëkk day dem kan mooy jël le défenseur de André Kenny moom mooy jël yooyu tey seen bal lañ koy dégagé mu ngi noonu génne na touche Pape ngi noonu génne touche côté droite côté tribune Mbengo moom ñoo ñoo moomee le numéro bu déggoo moom moo touche bal bi noonu kan moo récupéré André Kenny bal bi day génnaat touche bu déggoo Daarou Rahman Pape Sidi ñoom ñooy noonu di trottiné le numéro 19 bu Dego, Moko ko wàccee nu muy def day le troisième poteau ba léegi waa déggoo ñoo ko yor noonu dañuy téye nu muy def day jéem dem bal bi day le latéral bu Kenny dégagé

ngi noonu coup franc la aj na ko ci kaw def longue passe kan mooy mag défenseur Ndégo Darou Mane moo ko mag kan mooy jël waan rek ñoo koy récupéré le numéro 18 day jéem a demat day dem lu muy def le défenseur moo ko jël dégagé ko mu dellu kan mooy jël ñàkk nañ ko waa André Kenny ñoo yebal moom doxal waa Déggo ñu ko récupéré ñu noonu doxal kan mooy jël mi noonu si ligne médiane bi joxe na ko war na ko ñoo temporiser doon liggéey jooy ko côté droite mais bal bi dafay génn bal bi day génn nous sommes à la ñu doon di doxal waa André Guèye boobu ñoo koy contrôlé mais waa Dekko ñoo ko récupéré ñu def arbitre bi lu mu wax nee na joué ñu noon si ligne médiane bi si milieu terrain bi ñu doon di ko doxal si rond central bi kan mooy doxal ñu noon si défense bi ñu koy delloo kan jël le défenseur, le numéro 13, Moko c'est jël bàyyi si Roman, a passe mais pas il a fait un mauvais passe mais attaque yi Alexandre muy excentré bi day daw le défenseur attention le défenseur André Kenny Moko mu dem pour il joué rapidement Il centré wala day day waa Ndekeli ñoo ko yor latéral gauche moo ko yor nu muy def da koy jéem a yéegal bal bi day génn day def lu yomb Pape moo ko récupéré daf koy dégagé rek mu jeex day attaqué dem mais boobu dafa génn touche waa Ndekeli ñoo moom possession yi ba léegi latéral gauche moo koy touche rapidement jox ko axe bi def daf koy dégagé rapidement kan mooy mbëkk le défenseur moo koy mbëkk day génn le moo ko mbëkk mu génn mais arbitre nee na ku franc la mu tëbee def ko wéeru Pape Sidi wala touche touche sa def mi ngi noonu touche nañ ko rapidement mi ngi noonu côté gauche dañ contrôlé mu def def benn wat def passe lu muy def perte na arbitre lu mu wax nee ku franc arbitre nee na faute la

ñu noonu la défenseur de Deggo Darou Rahmane moo def passe côté touche côté tribune couverte lu arbitre wax bi dafa gën a touche lu arbitre wax waa André Kenny ñoom moom côté gauche dañuy def seen touche da ngay def dem na gérer seen touche rapidement kan moo ko jëlee latéral gauche moo ko jël de benn passe ci kaw aérien kan mooy mbëkk défenseur de Deggo moo mbëkk noonu mu delluwaat bal bi day gën touche Je joue rapidement nous noonu excentré bu def ben le arbitre ko <coughs> arbitre touche arbitre jouez rapidement à gauche de tribune couverte da ñoy doxal Wa, André Kenny ñoy doxal avec les maillots verts clairs ñu de doxal vers olive vers bu rafet la Vous ñu joxe côté droit ñi def da koy mais confrères, franc français André Kelly. nous sommes à la 21e minute Pape Sidi zéro but partout. voilà nous sommes à la 21e minute de jeu toujours euh, zéro but partout entre Deggo Darou Rahman et euh, euh, euh, André Kelly. donc nous avons gagné impérativement victoire moo voilà. mais coach dafa mel ni euh, Gidego moo dominé une euh, légère domination rek waaw. waaw am nga match bi match piège. waay. parce que amee niil mooy moom tamit ba déwén. ok léegi nag bi mu nekk nii. waaw si la war mën a profité dugal dugal. sinon au cas échéant Igbu entre këli bi lu tax mu dangereux dafa am ay individu yu garaaw boo leen bàyyi nag bañ bañ bañ am repère boobu nag pour nga gagné leen ce sera très moo tax déggoo si temps bu jée bu yaboo mu jéem a dugal sinon de euh, entre këli bu bu woo rek gañe ka naqari parce que équipe voilà bu dangereux la voilà équipe bu dangereux la Sira loolu wax wax na dëgg parce que Sira fekk ne dafa dem ba am confiance André Kenny euh, match bi dootul yombati ci waa Déggo euh, donc c'est ça donc euh, moo taxit def nañ pression def nañ pression ci waa André Kenny pour pressing bi les entraîneurs Doudou Sima et Tapassi ñu noonu di wax ak les joueurs dafa am benn jour bu Déggo daanu man daan woon mais heureusement jub na. waaw am na benn jour André Kenny aussi bu tëdd voilà ñu ngi noonu voilà jour bu tëdd bu waa André Kenny voilà après 23 minutes de jeu Birame rien sur les dents en tout cas Deggo moo xaw a dominé un euh, petit légère mais ba tey bii dugagul. Deggo moo xaw a dominé Pape Sidi parce que am nañ ñaari occasion yoo xam ne dafa doublé. waaw yoo xamante ne nii waroon nañ marqué sax benn mais peut-être chance bi moo ñëwagul parce que tey match yi boo xoolee comme li coach wax dañoo naxantey que le meilleur parce que gis attaque André Kelly, c'est un bon attaque attaque de Deggo Roman aussi c'est un bon attaque parce que gis c'est un excentré droite bi c'est un excentré voltant parce que excentré bu il court très vite pour Deggo Rahman. il court très vite au côté droite xaw na sonal le latéral gauche pour André Kéri kon tonku tay mën naa wax né match bi dafa ala daw mais parce que nous sommes 50 50 là mais bon on dirait possession tout le monde m'a donné joxe 100% pour dego Roman. parce que y a ñaar occasion né doubler. doubler. yo xamné monotal keuru euh andré Kelly, pas fini voilà donc 60 40% parce qu'il y a parce que une légère domination d'André Kelly. voilà une petite légère domination pour andré Kelly, euh, pour dego rahman di moins voilà Euh, joru déggoo bi arbitre bi nee na mu génn dugaat le numéro 9 voilà ñu dégagé ko waa Andre Kenny bëgg ko mu bondé ci zone bi mais heureusement dañ ko dégagé waat ñu koy def en ping pong jeu de billard ñoom waa déggoo est-ce ñibbi waa Andre Kenny dañuy ñibbi voilà un long dégagement mi ngi noonu ñoom waa André Kenny bal bi récupéré nañ ko le numéro 7 moom la Biram doon wax léegi voilà moom day day débordé day cotte bal mën na téye bal voilà l'excentré aussi bële changé war na le numéro 14 position bi mu nekkoon da ko changé bal bi day génn à 5 mètres 50 après 25 minutes de jeu André Kenny 0 Deggo Darou Rahman 0 voilà ñu ngi noonu ña ngay doxal. ñoom waa André Kenny c' était euh, cinq mètres cinquante bal bi teg ko il est toujours debout voilà l'entraîneur de André Kelly aussi il est toujours debout ku nek di xol lan ngay def euh, pour xool euh, placer ses joueurs parce que yaa leen di gëna a euh, jekku terrain bi parce que fi ngay taxaw motax ku placé wul nga placer wat ko voilà les entraîneurs mi ngi nonu dans quatre-vingt-dix minutes dans dañ koy taxaw voilà touche bi gëna na pour waa André Kelly. Dos pour André Kelly. Voilà, day gënaat encore dose cette fois-ci pour voilà. voilà. Euh, non dégagement pour waa André Kenny mais waa Deggo ñoo yor bal bi ñooy doxal ña yaatal est que duñu ñibbi voilà ña ngay tabax ña ngay tabax un euh, long dégagement pour ko ñoom waa André Kenny voilà yokk na ko ba kaw bal bi bondé le numéro 14 dafa changé poste pour ñëw voilà les deux numéro 14 lañ voilà bu Deggo ak bu André Kenny récupéré na ko récupéré na ko day dem yaatal na ko yaatal na ko mi ngi door na ko le bu déggoo Daaro Rahman waa ji da ko kaj technique la def waa ji da ko kad <laughs> waa déggoo la supporteru déggoo la <laughs> <laughs> voilà ay supporters yi bu ñuy jóg duñ ko tay biram duñ ko tay parce que ñu dañoo faré baaxul. voilà nawetaan mo mel non voilà booy dañoo fare dafa ëpp doole. mais il faut ñu dugg ci quartier yi di sensibiliser di sensibiliser euh supporters yi aussi ñu xamné ñu wañi violence yi wañi coow xamné football. jeu de jeu de l'esprit mi ngi noonu Cornel la jog na premier poteau kan moo ko mbëkk le de Deggo Rahman moo ko mu génnee kan moo jëlaat bal waa André Kenny côté gauche nu muy def day yóbbu day résister dafa centré ma ñoo ko jël bien Deggo ñoo ko récupéré le numéro 9 moo ñëw marqué delluwaat bal mu dégagé côté droit kan moo jël centré bi day téye def benn jogonal fële le défenseur moo ko dogale téye ko nu muy def joxe ko côté droit côté arbitre nee na coup franc la 28e minute de jeu zéro bi partout comme ni ko Pape Sine di waxee rien dans les dents gisaguñ dara mi Mais non, vous êtes sur RMB TV Eldam TV mi ngi noonu jëloon na coup franc bi foofu ci kaw mi ngi noonu mais directement si gardien bi bi bu teg ko moo ko jël def relance rapidement côté droit kan moo koy jël latéral droit moo koy jël def benn passe jël le défenseur le Henri Guély moo ko dégagé waat bal bi ko jël waat dégg daanu na arbitre lu mu wax nee franc pour ASC Deggo mi ngi noonu le latéral droit de Deggo de Darou Rahmane moom mooy jël noonu dafa aj daf koy aj ci surface de réparation bu André aj na ko mi noonu ci kaw kon mooy mbokk attention bal bi day génn 6 mètres Pape Sidi pour ASC mi noonu bu leen neexee ngeen yónnee seen i message via RMB TV seen i commentaire Ndam TV RMB TV Ndam TV RMB TV dafa jàll peut être sur Facebook YouTube Instagram fan tool dañ koy seetaan ñu leen koy jox laay bantaay rek fi di stade Galandou Diouf Dervis ànda suma copain suma daanagoo Pape Sidi ak sama consultant Essa le grand coach de jamono mi ngi noonu suñu wet possession boo possession baa ngi noonu c'est André Kenny faute moo am Pape Sidi Dior baa ngi noonu toll si pelouse bi waa Croix Rouge ñoo daw ñëw war ko di xool lan moo ko dal aussi dama bëgg ngeen di ñëw di parrainer match yi fii si RMB di leen ko parrainer match yi jàpp si combat bi parce que wax dafa metti Pape Sidi bu paree sax ñu am lu ada, ma ca radi ñu ma ca crème Pape Sidi naan soow wala naan ataaya bon awee président ko jot bon awee Pape ko jot bon ko jot bon DG Ibrahima Ba jot ko match yi ñu ah Pape. ñoom fan ñu solo voilà am na solo biram jàpp ci combat yi voilà di remercier ñi nga xam ne aussi euh, les Papa Ndiaye les Morour waa Ruxuba président Ruxuba Modou Penda voilà. Mor Gueye président rek war a ñëw. président saa xewar gars yi nga ñëw nga ñëw. le président saa xewar nee nga ñëw jàpp ci match yi voilà un long dégagement pour entrer yi day génn en touche joué nañ un demi-heure de jeu toujours 0-0 entre Kéline 0 Tego Daan Rahman 0 ci jouru entre Kéli bi ci presque fi ñuy toog sama gars yi ñoom Akara Ndiaye bi foofu la am C'est le numéro 13, Papsidi, qui a fait une faute au côté droit. Il a fait une faute le numéro 13, le Degorda Rahman, sur l'attaquant d'André Kelly, ou bien Alexandre d'André Kelly, Papsidi. Voilà, faute. On nous sur le nom, le Bataille. bi day bañ a génn terrain bi arbitre bi ko génneel ñu continuer jeu bi voilà voilà coup pour André Kenny le numéro 6 dafa mel moo koy tiré noonu côté tribune couverte fi di toog la corps médical et les journalistes les ngi noonu jag nañ coup franc bi deux jours rek ñoom ñoo barrage ñoo taxaw ci barrage bi waa Déggo ñaari jours kese ñoo taxaw ci barrage bi won naal na ko premier poteau bu dagaase ko day jël des milieux de jeu Pape Sidi Pape looy xalaat Pape da ngay jékki-jékki rek di xalaat Pape la xalaat. Pape soxna si ngay xalaat wala gar ngay xalaat Pape. Pape da ngaa jékki-jékki di xalaat Pape Sidi. non non xool match bi la philosophie match bi laay xool tey déggoo impérativement dafa war a gagné André Kenny aussi dafa war a gagné des fois loolu la nag laay xalaat match bi noonu la war a demee déggoo zéro rien sur les dents André Kenny zéro 34 minutes de jeu. muy Pape Sidi 34 bi de jeu mi noonu il reste 9 minutes de jeu

day gën a touche pour AC André moo jël le latéral gauche remise na ko si ginnaaw kan moo jël le défenseur delloo ko nu muy def waa André Kenny mu delloo ko une nu muy def day téye nu muy def day jéem a romb romb na ngay def def benn passe bal bi génnagul arbitre du mu wax waxul dara ñu doon def benn diagonal fële ci kaw bal bi est-ce que du génn bal bi j'espère que day génn. day gën a tuus bu déggoo Oudar Rahman capitaine bu déggoo le numéro 4 moom mooy tuus soonu bal day doon tous pour déggoo Darou Rahmane Pape Sidi waa déggoo ñu ngi di avancé waa Deggo ñu ngi Deggo avancé le capitaine de Deggo c'est latéral gauche bu Deggo Daaru Rahman le numéro 4 mooy touche noonu jox ko Barnera mu delloo ko da lay def day téye def longue passe day centré le défenseur d'André Kenny moo ko mëkk mu delloo noonu zéro central bi lil médiane bi waa Deggo ñoo ko delloo noonu le numéro 10 moo ko wàcc def passe attention lu def attention lu mu wax nee na hors-jeu arbitre nee na hors jeu pour André Kenny ñoo moom possession bi di gërëm le président Jacques le président Sénégal moom ñu ko gërëm ñu ngi foofu di seetaan RMB TV ñu ko gërëm Jacques Cissé dégagement le gardien de but le dégo d'Arhaman On va bal si terrain Kelly bal le numéro 7 mais le numéro 10 may dem nous def le capitaine le numéro 4 Mon le numéro 13 mu contrôlé le numéro 4 le numéro 13 un mauvais passe le def arbitre mu wax le franc coup franc lay nekk pour André Kenny le numéro 4 14 jël na 14 jaune le numéro 14 de de Deggo moo jël 14 jaune Pape Sidi doon def indi am jaay indi jóg mais ila a fait un mauvaise mu siif ko dem mu teg tànkam arbitre bi doon faute bu doon faute arbitre taxaw da nga war a teg sa tànk jox ko carton di nuyu waa Déggo Daaru Rahman waa André Kenny waa Asilem waa Déggo sant na yàlla ñoom ñëpp ñu leen di nuyu di nuyu waa Soka Beek di nuyu aussi waa Cité Millionnaire di leen wax ne jeudi départemental moo am Jogul Bantul mooy génn jeudi départemental mooy am fii si stade Ngalandou Diouf demee j'espère que waa zone 11 ñoo ay muy côté bëri côté attention Franc bi door na ko mu daw mu dem si loxo gardien bi bi parce que suba ak ginnaaw suba suba ginnaaw suba waa zone Bambilor ñooy fubal fi seen match Pape Sidi waa Tëngéej dañoo noppalu zone boobu ñooy def ñaari journée yi muy suba ginnaaw suba zone Bambilor ñoom ñooy ay bu ñu paree départemental bi doo ko jël yi noonu jeudi aussi ñaari match bay am huitième de huitième de finale moom semisu aussi day fubal Daaru Salaam day fubal semisu moo si Muxtaan waaw Jokul Mandul Kër Diaylo Kër Diaylo Pape Sow ñu noonu Pape Sow ñu laa ne yàlla dimbali nga génn fa ak jàmm Pape c'est un homme social Pape Sow le maire j'espère de Sangalkam ñu noonu Pape Sidi ñu noonu di doxal côté droite mais côté gauche Bandary Këri ñoo yor bal bi noonu di doxal côté gauche daf koy joxe attaqué daf koy joxe fële wala boog daf benn pivot day tourné daf benn passe une deux lu muy def défenseur moo ñëw laal bal bi day corner le défenseur bu déggoo Rahman moo koy génne mu corner suba comme ni mu leen ko waxee Bambilo Bambilor moom ay mais jeudi Sébi-Coxo comme moo fiy football pour le départemental war coordonner continuer seen départemental le huitième de finale yi Pape Sidi loolu jeudi lay am ci di stade Galandou Diouf mu am joueur blessé Pape Sidi moom la waa Croix tiim noonu di ko xool côté tribune couverte mu ngi noonu Pape mais suba ginnaaw suba yëpp zone Bambilor ñoom ñooy aye dinaa jox ñi football bu ci kanamee tuuti Pape joor André Kenny moo blessé woon waa ñu koy xool jox na Cornel Moham, am Fafiri gros Pape Sidi dañ na ko André Nous sommes à la 41e minute de jeu. Toujours 0 partout. Rien dans les dents.

ñu ànd noonu dinañ ko jox laay vantaay rek fii di stade Galandou Diouf de Rufisque am na équipe buy dugg Pape Sidi équipe bu quatrième heure yi mooy dugg na le xama ko may ñan la léegi ñu ngi dugg ah waaye yëgoo na Sidi nee na waaye yëgoo na Sidi moom maa jàppale ci zone bi moom maa jàppale nee na waaye yëgoo na dafa leen xàmmee Oui, non, nous la 42e minute de jeu Pape Sidi. 3 minutes modestes, première période. Pour ñu dem noppalu ñu ngi jéggalu ñu tax ñuy reporté si numéro yi dañu laaj feuille de match yi saa yi bu ñu ko laajee gars bañ nee nañ gars ñu jël feuille de di ko joxe wala di ko jaay moo tax nangootuñ ñu ko jox ñu bor ñi ñoo yàq ñu baax ñu Pape Sidi mais ñun suñu liggéey rek la ñuy def ñëw reporté dem te ñoom ñii ngeen ko war a kon ñu xam turu joor yi xam ñi nga xam ne ñooy football ñun Pape Sidi supporté wuñu kenn dañu ñëw rek pour joxe match yi live en direct pour ñu ñëw seetaan xam ñuy football loolu kese mais faraluñu kenn ñëpp lañ yemale Pape Sidi fi nam du maanaam Pape Sidi faraluñu kenn dañu ñëw rek pour wax pour leer li nga xam ne moo 43e minute de jeu Lego Daaru Rahman André Guély 0-0 kenn amagul moo arrêté parce que ah, arbitre bi moo ñëw di wax awa ah, André Guély dafa yaakaar dafa yaakaar ne dama yaakaar ne dafa am lu jënd si kaay moom la ñoo wax arbitre baa ngi noonu di daw di ñëwaat nee ne kaay waruñu ko laal moo tax marabu sëriñ yi boo leen toppee sëriñ dañuy yàq seen match kenn waxul ne aay nañ aay nañ mais aussi boo leen toppee Pape match bi dafa basculé mi noonu yéen a ngi dégluwaat supporters yu déggoo Daaru Rahman ñooy supporter ba léegi depuis première ba 45 minutes presque ñu ngi supporter parce que supporter dafa baax sa dafa pousse sa dafa yokk jom mi ngi mën a way si làmb way si ma sa ko wax nee na xaan bay ma jaago bu ma way dafa maa yokk jom sama yaram dafa taw du ma mën dama kaa jéem a def Moustapha Gueye ñu kaa nuyu nuyu foofu si bal baa ngi noonu gën a touche ñoom ñooy avancé

arbitre tax na match bi ne le leen Nous leen Pape Sidi match bi jeex na zéro à zéro première période. voilà nous sommes à la première période entre Dego Rahman euh, André Kelly nous sommes à la 45e minute de cette première période rien sur le nom Nous devons euh, pause le lu de ñëwaat euh, à la ne quitte pas. Opa!